bu jooyee Alboury bu jooyee bu jooyee Alboury bu jooyee Alboury lan la Alboury lan la alhamdulilah rabbil alamin Alboury lan la wala aadi yaari dafa xan xol muur yaari xana xan xol mu xëyraadi xana xan alhamdulilah waaw loolu mooy la di wax jërëjëf yàlla combat bi maa jëlee sama bopp salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi vidéo bi yéen ñëpp gis ngeen ko Alboury ba mu daanee ay alxuraan la doon wax di yàq baat yi ki làmb ji alxuraan du pour làmb respecté leen sur religion yi koo ci tey ji boo tuddoon xasida maam Bamba yi murid yëpp jóg dal sa kaw xilaasu maam Maodo bi boo ko laaloon doo nelaw tey muy njaasaan muy cere ba ak ku mënti doon ñi lay reetaan nag waxuñu la dëgg yaa ngi dégg alxu yàllaa gën a foor sëriñ yooyu yëpp ndax yàlla leen sàkk pouvoir bi am yàllaa leen ko jox alxuraanu yàlla ji du du kenn du ko fontoo lii bu mu la darati bu mu ñaar c'est yow donc voilà c'est ça ma passion le là ça a donné comment Sénégal pour l'histoire ça a donné comment Sénégal bientôt pour l'histoire je ne comprends pas très bien ta question le stade là ça doit être euh, euh, comment il est l'entrée de Sénégal pour stade pour Afrique. C'est la stade pour Afrique. Comment tu euh, pour les enfants, c'est ça ce qui beneen vidéo bi beneen vidéo bi moom mooy guy 95 gis nga ko micro lañ ko jox mu tiimale ko trois bi nan ko ban ban ban intérêt la stade bi am lo wax ci stade Sénégal bi di ñu rusloo yaa ngi dégg te moom question yi baxul français baxul mbër la nan bàyyi li journaliste yi ñu koy mettelu nan bàyyi ku jóg ñu jox la micro yow jàngoo journaliste mu defoo école amoo ay diplôme ku toog ci télé bi ne journaliste nga mais c'est junta senegal lii mooy lan waaye cottu day lii waay